Euh, li gëna euh, xotal crise politique bi ñu japp ko ñun ñëpp moy une euh, peut-être une surenchère verbale d'une extrême violence politique yi bu ñu génnee da fay da fay da fay violent té lolu xeyna day dem ba matérialiser peut-être sur le sur le terrain politique est-ce que jotul aussi ñu xoolaat sen sen sen togaay Mohamed mhm. waxu saga ak violence mhm. ñëpp xam nañ fu mu joggé faut on peut pas les choses mhm. président Macky Sall nekk na ci sénégalais dans l'opposition dans l'opposition nous au pouvoir depuis 2012 ken mësul avant muy ñëw avant loolu mu nekk PDS mu génn 2008 dem nekkaat opposition yàlla may ko mu dem gagné en 2012. ba tey nii ken mësul dégg kenn mësul dégg kàddu gu ñaaw mu jóge ci làmmiñam dem ci keneen même ci ñun ñi nga xam ni ci keppaaram lañ nekk képp ku ci wax kaddu gu ñaaw boo ñëwee dala koy fàttali ne la dama bëgg ngeen rester dans dans la ligne bi ma tracé mooy tin de respect vis-à-vis de ñi nga xam ne ñu ngi jongante ak ñoom parce que suñu respecté wul ñooñu duñu respecté suñu bopp donc bu ñu waxantee mbir mi Abdoulaye Wade a fait vingt six ans de lutte vingt six ans pour arriver au pouvoir ay bu ñuy wax ay ay ay dérapage mën nañ ko compter mën nañ ko compter waaw benn yoon mos na fi wax oui, il y a un mélange détonnant qui risque de nous mener tout droit vers une guerre civile. Socialiste aggravé voilà la seule phrase. beneen bi moi, bu muy caricaturer le président Macky Sall alors que vous voyez le pouvoir c'est les deux ou trois dérapages je me suis dit. mais ça, ga euh, nit am Je termes un nga xam ni man maa ngi koy classe politique par exemple lu fois fi wax Kër Massar foofu xam nga man. un mm-hmm. éducation mayoo ma may répéter un termes en public. ça.

mais non attendez. Ousmane Sonko un problème avec nous c'est-à-dire que mais est opposant mhm. Habib opposant mhm. <laughs> à ce que je à moins que nous ou bien Sakaru opposant mhm. Ousmane Sonko a deux problèmes. premier problème ak Mame Mbaye Niang mu un rapport bu tout le Mbaye que Mbaye Niang à alal a un rapport IGE mu rapport IGF mu ne waat dafa juum ci internet la ko jëlee mais Mame Mbaye Niang citoyen sénégalais la am nga rak am nga mag am nga kilifa moom Mame Mbaye am na i doom am na papa am na yaay mu nekk ci réew mi nga ñëw taxaw ci télé nga am na rapport bu ko épinglé mais Mame Mbaye fu mu koy jooyee tribunal beneen problème deuxième problème Ousmane ko am dem na ci salon de massage ci période Covid ay neen mu jote fekk xale xale ba génn ne def ko violé porté ko plainte kon ñun état. mais monsieur le ministre c'est vrai c'est vrai que ne kon amuñu problème kon amuñu ñun. en tant que APR. Mhm. en tant que coalition Benno Bokk yakar ou bien boo jëlee fonction yi nga teg ko de côté nga ne état. état amul problème ak mais état lu mu am. Mhm. mooy veiller à la bonne distribution de la justice. Mame Mbaye Niang am na dëgg am na dëgg. attekat dinañ ko wax. mais monsieur Aji Sarr moo nekk ci dëgg be nekkul ci dëgg. attekat bi dina ko wax. mais mais monsieur le ministre c'est vrai que ne li nga wax euh, nangul nañ la ko par rapport ak situation bi nga xamante ne ne moom la Ousmane Sonko di dund euh, mais dañoo gis ne ne également dañoo njortu ne ne lu ñu mel politique da ko laal raison pour laquelle moo tax mu fippu pour yuuxu. waaw mais nag dama bëgg ñu leeral askan wi. voilà c'est ça. c'est-à-dire que lan naka la politique laloo foofu. Mhm. buñ muy dem moom mu taxaw ci micro. mu ne Mame Mbaye Niang am na rapport. Mhm. bu ko épinglé. kan c'est-à-dire est-ce que dañ ko defal ndigal ndigal serax rax bien am na luñ ñu ko lii mais nañ ma wax fan la politique jógee foofu àdduma dañ wax lu leer rek. Mhm. c'est-à-dire que Ousmane Sonko dañ koo waxloo. Mhm. ou bien ñun ñoo ko puus. moom moo wax attaquer un citoyen sénégalais comme lui ne sàcc la fan lañ ko mën a faje beneen bi période Covid ñun ñoo ko yóbbu ñun tamit ñoo comploté yóbbu dugal ko ci oto dugal ko ci salon ba. période covid nga xam ne dañoo tëjoon ne mbir mi beneen bi xale bu jigéen bi lu ñu séq départ na ngeen fàttaliku déclaration yi bi njëkk ndaw si njëkkee wax dafa ne musu faa dem musul xam loolu di progresser mu ne dafa amoon problème dégg di progresser dem naa fa waaye lu ñu wax amut donc loolu yëpp mais faatumata luy dëgg mooy bu njëkkee ci ab réew justice mooy tranché muy mambay ñaa muy aji saar dañoo porter plainte nañ bàyyi attekat yi atte te lii mi di am nii c' est pas la première fois dans le monde nañu fàttaliku Dominique Strauss-Kahn DSK lan lañ ko lan lañ ko accusé benn xale bu jigéen dafa ne daf ko tapaas moom sax waxuñu jote daf ko tapaas tapaas boobu tax na ba DSK nekkul candidat aux des élections parce que justice moo ko condamné mais bu Dominique Strauss-Kahn amoon ay preuves te ak lim mu nekkoon ci àddina nek patron FMI nek candidat sérieux François Fillon lu xew dañu ko accuser recrutement bu nga xam ne daf ko def ci assemblée ay mbokkam plainte topp ko ci ba ki nga xam ne yaakaaroon un des principaux challengeurs ci élection présidentielle justice dal loolu mooy dal Ousmane Sonko. parce que y' a présomption d'innocence. non voilà exactement. Mm-hmm. li ma bëgg moo tax dès le départ. damay ne man ma Mame Mbaye sama xarit la. Mm-hmm. suma collègue la. waaye dafa wax Sonko wax. Mm-hmm. Adji xaw ma ko ni Dadan ni Dev dafa wax Ousmane wax mais na dem ci àttekat bu leeralee Ousmane Sonko bu génnee ci lii ci jàmm. fu ci ñaar yëpp ñu ne moo am dëgg. mais loolu tamit politiquement war na ci tirer ay conséquences. d'accord c'est clair waaye bu ci amul deug itam. Mhm. ala ku yàlla nag. Mhm. en politique. les fautes se payent cash. d'accord avant may delloo kàddu gi euh, Mohamed peut-être euh, monsieur le ministre également mën nañ wax né peut-être mën nañ gis né ne y a deux poids deux mesures euh, buñu xolé kérok keroog na amal li nga xamante ne moo conférence de presse presse am nangu lu ñu ko au même moment yéen itam yéen ngi tenir quand même sen point point de presse. non non non ñun du benn ñun du benn d'abord un. Mhm. xam nga <clears throat> administration gouverneur yi ak préfet yi. Mhm. am nañ responsabilité ci ordre public. oui ordre public tamit lu fekkee amna lu koy troubler dañu koy prévenir. d'accord yo bo taxawé ci taxawayu wara perturber ci ordre public. voilà mhm. ku leen ñu jël seen matukaay du ñu bàyyi ba nga perturber ordre public bi ba paré ñeu di di joytu euh, on ne fait pas le médecin après la mort donc foofu c'est la responsabilité de ceux qui en ont la charge. ñun dañu dem suñu conférence de presse suñu permanence. suñu biir permanence amul benn perturbation amul benn intention amul benn acte bu ñu ko mën mën a mën a briser loolu tamit bu fekkoonte ni ñun am na intention bi préfet bi ou ou sous préfet bi ou gouverneur bi daf ñuy arrêté parce que bu gisee ni parce que aussi état état état aussi kenn du ko surprendre xam nga président waxoon na fi kàddu gu nga xam ne gars yi dañu koy dañu ko bañ a fat dafa leen waxoon ne li ñu dal mars 2021 dootuñu dalati ah qui qui s'y frotte si pique parce que l' état doit rester l' état quand même mi non, procès politique euh, dañ may comploter euh, ñu gis ne euh, monsieur le ministre est-ce que kan tamit sunu démocratie warul ñu ko reposer wu sur le débat autour des programmes ou le projets de société que euh, affaire suite Beauté poli dañ procès politique ñenn ñi jàpp ne am mainmise peut-être de l'État complot derrière ñu gis ne débat bi dafa baa ci ben enseigne que doo comprendre léegi Sénégal ñi fi yor sax xam-xam waxatuñu euh, yéen ngeen yor responsabilité yor nguur est-ce que nous devons orienter le débat ci ay projet de société ak programme pour que Sénégal mën ci jariñu que deux ans yi nii tamit ñuy ñuy dund ah, ci ay mbiru mœurs mbiru mbiru voilà non je suis parfaitement d'accord que démocratie Sénégal war na tey ci niveau bu nga xam on ne pouvait pas arriver à certaines choses mhm. mais chose yi du ay tribunal la hein. mhm. tribunal bu Kaffrine ba bu Kaolack ak Dakar mhm. chaque jour des citoyens sénégalais ñu ngi leen di traduire. Mhm. pourquoi jantre ñu wax ne homme politique waruñu cee bokk. Mhm. ou bien journaliste yi waruñu cee bokk. journaliste bu ñu fi jàpp journaliste yëpp def code réunion ne voilà ñun dañ libéré diw monstre etc. cetera et politique bu ñu laal ñu ne voilà c' un complot. alors que y' a d'autres citoyens. simples anonymes chaque jour qui sont traduits devant les tribunaux et qui perdent leur droit. ou bien qui sont condamnés au nom de quoi ceux qui font l'opinion, les hommes politiques ou bien les journalistes, seraient-ils au-dessus de la lois Dans tous les pays du monde, c'est ça euh, aussi la démocratie. La démocratie exige que tout le monde, l'état de droit exige que l'état lui-même soit soumis au droit, mais, mais aussi que les citoyens soient tous d'égale dignité et justiciable devant les mêmes. Mais un ministre de la République, nous dénk la ay deniers public, c'est très normal euh, bu ñu amee lu ñu jaaxal ñu ne la kat ah monsieur le ministre li kat euh, am na ay rëx wala xeyna amna rapport bu guen est-ce que jarna na yóbbu ci yoon bay porte plainte xam nga bokul kiko wax. Ah. nekkoon na député amna aussi ay député yu nekk ci noonu bu ko neexoon. Mhm. mu ne ah dem dégg naa ni vingt milliards product. je veux une commission parlementaire. Mhm. je veux que ñu leeral ko loolu kenn du la ci wax dara. mais boo taxawee nga ne am na rapport c'est affirmatif da nga ne am na rapport bu ko épinglé sàcc la su doon ci réew bu normal du fi taxaw di wax man maa ngi dégg. mais ci contexte bu ñu ko waxee. mais amul gis nga nag contexte politique yow yow léegi xam nga am nga monsieur le ministre xam nga léegi si émission bi nii su ma fi dérapé woon wax la lu ñaaw après da nga am nu ko réglé muy Fadou Mata parce que nañuy seetlu aussi que dañu am njaboot di am ñu nga xam ne gëm respecté ñu. mënoo ñëw rek parce que homme politique la tu es libre de tout dire. mais bu Sonko d' accord mënoon naa d' accord moi je connais Mame Mbaye Niang. su d' accord woon def na erreur mu wax ko publiquement def naa erreur parce que nit ku nekk yu jub. rapport boobu mënu ko génne xam nga rapport maa ngi dégg ay woy avocat fii la question est simple. la question mooy rapport bi génne ko. mais li nek ci ginnaw plainte bi monsieur le ministre. mais sachant que né un citoyen. sachant que né un citoyen. oui mais dafa am un citoyen du nom de Mambaynia buñ fi tay c'est senti diffamé. oui mais lo bëggoon mu def. lo bëggoon mu def. genn tontu leeral. lo tontu def dafa leen weddi mais mom kay du dafa weddi weddi waat. combien de fois wax nañ fi combien de fois ay nit wax nañ ko. mu weddi mais bo démé nak ba nek un leader politique. de cette envergure nga taxaw avec toute la responsabilité nga ne ah am rapport bi mais lui le minimum qu'il peut te demander c'est de sortir le rapport Si on m'a trompé on m'a induit en erreur je m'excuse c'est un être humain mhm. normal mais on mhm. aurait tiré peut-être les conséquences mhm. mais il salir l'image unique, de nga salir réputation simplement parce qu'on est en politique et ñu leen di derrière sa plainte